ñëpp gis nañ liggéey bi nga xamné jot nañ ko def euh, ci convergence bi nga xamné yalla dogal na ñu taxawal ko mu tollagun ci ay 20 jours japp 1 mois euh, ñu def ci point de presse euh, def ci li nga xamné ne moy euh ben mars yalla dogal dimbali ñu ba lan doon ñaan ak jafe-jafe yi nga xamné ben nit bu bokk lenn ci ay nit doonon ki ci gëna ñaaw aw lamine yëkëti kaddu ñaaw di koy wax ci sunu maam yooyu nga xam ne amuñu lu dul moom waxuma lim liñ doon ci ñun waaye suñuy pas-pas lan ndax ku mel ne Cheikh Omar Foutiyou Tall ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ni maam Alaaji Malick ku mel ne maam Bu Kunta ku mel ne maam Limaamu Laay ku mel ne maam Ahmadou Ndar Seck euh, euh, ku mel ne maam euh, Bu Kunta ak seex Ibrahima ñis ak Cheikh Abdoulaye Niass ak yeneen kilifa yu mel ni ñoom kenn ku ne xam na ne liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko ci réew mi di Sénégal buñ amee jàmm gannaaw yàlla ñoom la buñ amee ay xéewal ñaan yan doon wax gannaaw yàlla ñoom la yàlla nag dogal na euh, jëmm jooju di tudd Ousmane Ba fii ñu toll euh, moom mi nga xam ne moo ci gënoon a lu muy wax yàlla dogal na euh, police bi nga xam ne mooy bu Gabon arrêté nañ ko fii may waxee yow jël nañ ko yóbbu nañ ko Libreville Libreville Libreville bi ñu ko fa yóbbu it jàngat nañ ne ñi ngi ci ay xalaat di ñaan ñi nga xam ne it ministre de l'intérieur ak di ñaan état bi ñu jàpp ci ba nga xam ne euh, nin defoon waajooju nga xam ne moo ko moo daan saaga ñu jàpp ci moom it ba man koo indi ci réew yi li nga xam ne yoon def na ko euh, ci moom ñu teg ko ci mu doon loo xam ne nii moom lan ñaan ba keneen du ëllëg duutu ko am duutu ko def ndax ñun amuñu lu dul maam yi ci maam yooyu ñooy suñu kaaraange ca yaakaar naa réew mi bu bëggee am jàmm faw maam yooyu ñu war maa leen ñëpp gis nañ euh, li nga xam ne mooy Euh, école boobu am école di kii di gendarmerie bi am euh, ñu am luñ ci wax euh, ñu ngi ciy gëstu bi nag ndax waal yi am na ñu ko porté mën na noo wax ne ñoom ñoo ñi ci seen biir it am na yuñ ci jàngat yu bëree bëri ba nga xam ne yeneen jullit yi nga xam ne du muuroo ay waal sax gis nañ ne am nañ tuuti ay ay ay ak ko waaye nag li ñu ëppal solo rek mooy lislaam bi nga xam ne moom lan bokk moom lan am ca yàlla yit wax nu waxta si hablillahi jàmmee xam ne wala tafaraxoo kon foofu it ñu jàngat fi ne Euh, euh, école publique ñu ne école privée waaye lu ci mën a xew rek mooy diine nit ki moom fu mu mën a nekk fu nekk rek war na ko faa mën a yóbbaale war na koo mën a doxal ndax boo xoolee ñoom ña ca nekk it da nga ci gis ñoo xam ne ña leen di jàngal ña ngay takk seeni i ña ñeneen ñi ci des it yu doon ay euh, suñ mbokki chrétien yi ñu ngi takk seen croix seen i foofu nag danaa ci occasionné ndax dama dégg ku mel ne Barthélémy Dias wax wax joo xam ne nii il faut ma am lu ma ko ci wax mu xam ne kilifa yi Sénégal yooyu muy wax muy ay njiiti tariixa ñu yëkkati ci seen kàddu ñoo ñu dun ay moromam na na na yem ci wàllu politique bi na yem it fi mu war a yem ndax foofu euh, dafa am borom ñu bëgg nag loolu muy wax naan am fit ak kenn moomul kenn yooyu moom na am fu mu ko yemale. defoon na ko nag jox na ay exemple ba tudd wàllu école bi ba ko nural ay exemple ak jumaay Tuubaa xam nga foofu it nañ fi teey ndax école bokkul ak fu ñuy jaamoo yàlla. église bi kenn du fa dem di yóbbu njàngalum lislaam fii ci jumaa yi kenn du fi indi njàngalum église euh, kon fofu na fi jàngat ne na yam ci kuddu ñu roof ko ci gayit beneen côté bi ci des dañ koy def nag alerte dañ koy dañ koy jox avertissement parce que nag lu ëpp tuuru kilifa yooyu muy tudd ñu yëkkati kàddu di wax ci école bi ñooñu dun ay moromam buñ ko dee wax politique la ne yem ci politique bu gisee sëriñ bu wax ci politique comme man ñu wax ñu wax ak moom ci politique waaye ci wàllu diine ak wàllu lislaam ak diggante suñu dialogue islamo-chrétien bi ñu mel noonu dansé lañ ci moo tax bi mu tuddee jumaay tubaa ci moom bi mu demee bay dugg ci jumaay Tuubaa ci sama kanam la man maa gis ne mu dugg si ànd ak Xalifa la am na foo xam ne wax na ko du dëgg muy toogut ci wetu Xalifa la bi mu duggee Xalifa Sall dafa jël droite moom mu jël gauche dem toog deuxième file ba mu demee toog deuxième file man maa woo Abdoulahat Boussa bu xit ma na ko kee du jullit kon lee mu def na ko génn sant naa ci yàlla nag ba nga xamee ne génne nañ ko ndax tey bu fekkoon ne julli na fa mën noona wax ne tey ji bu defee interview mi danaan ba ma jullee ci jumaay Tuubaa ajuma kon yooyu yëpp ay danse la yoo xam ne nii nan ko arrêté ca doon na yoo xam ne nii moom it avertissement lañ ko jox ëpp kenn aw fit ca it wa bañ na ko ba wax ne minorité ñun nag jàmm lañ bëgg liñ bëgg mooy suñu kilifa yi ñu bàyyi leen ñu bàyyi leen fi ñoom ci seen jëmmi boppam it ñu aar leen ñu bàyyi fi ba kuy wax nga wax ci wàllu politique wala nga wax ci leneen kooku avertissement buñ ko jox rek la euh, mu am lu méttiyat ci beneen côté bi muy côté diini ji ndax euh, ñun bi ñu defee marché bi kër diini yëpp ñu ngi ci biir def nañ ci tournée kër diini yu ci bari ñu ngi continuer di liggéey ci loolu pour war a ñëw tubaab war a dem Tiwaawan war a dem fépp euh, Ndakaaru ña fa ne ci ay kilifa diina gis na leen waaye dafay am méthode wu continuer di am ñun ahlu tarixa ñun ñun ahlu suwis dafa am lu metti luy am loo xam ne moo moo téye ci suñu xol lii am ci livre bi nga xam euh, euh, euh, histoire du Sénégal bi ni bind ca kenn bind ko kudut ab Iba Der Thiam bu mu tax mukk ñuy xajal ko bu mu tax mukk noonu yii ñu jàkkaar lool nga xam ne ñoom sunu lislaam dañ ko da dañ ñoo wàññiku di ñu tuddee waa ahlu bidaa ñoom ci seen jëmmi boppam buñ am kerse ci ñoom parce que li tax mooy nii mag ñi ànd woon nekk benn ba kenn ku ne di yëkkati ay kàddu di tagg sa morom kenn ku ne jàppook sa loxo sa morom ñu tas ci lislaam bi not tubaab bi fu tubaab bi taal ab taal ñu jaar fa def fa jàkk wala ñu def fa ay taxawal fa ay seex ak loolee nañ ko fexe ba ñu ñooy ànd boobee maam ñi àndoon ñu ànd ko waaye lii am am ibadeer wax nga dégg ku dégg kër maam seex euh, euh, Ablaye Niass nga gis am ñu yëkkati jëmale ci suñu mbokki waa kër maam El Hadj Malick ah man de ku ci yëkkati kàddu ku ne jëmale ko ci yooyu dama dafay doon loo xam ne dañ koy ñaawlu am ci méttitu xol ndax nag am na ñeneen ñu jàkkaarloo ak ñun du ñu yëkkati ay kàddu ci lu ne ba tax ñun ñëpp ñu ànd kon nan dalal suñu xel xalaat li nga xam ne maam yi bàyyeeloon nañ ñu ko ñu fas yéene loolu ñu booloo ko jàkkaarloog ñeen war a jàkkaarloon jàpp naa ne mooy loolu li nga xam ne nag Iba Der def na ko wërta am lenn lu mu indi ay naq-naqal ci suñu diggante kenn ku ne sa maam suñu borom ci kattanam ci nu yonent bi ci barke bi bi liggéeyal nga ko ba mu jox la loo xam ne nii ci ba ilaa yu mi diini loolu du jeex ba ilaa yu mi diini kon waaye booloo googu teewutal ñu nekk ndax ñoo bokk fu ñu jublu ñoo bokk lu ñu gëm kon nan fas yéenee wàcceewaat suñu bopp ànd nekk benn jàkkaarloo ñi nga xam ne ñoom jàpp na ne suñu lislaam du lislaam ju ju wér loolu nag mooy li ëpp solo ca ma ñaan nag mboolem ku bokk ci maam kër El Hadj ak mbooleem ku bokk ci maam kër ab laay ñis ak mbooleem ku bokk ci waa maam kër Cheikh Ahmadou Bamba ñu ak tarix yépp nañ gën a booloo ndax jot na ci guddi yi ñun gëstu yi ñu jot a def bi taxawee convergence beeg léegi jot na ñun ñëpp ñu booloo di yëkkatindoo di xeexandoo di wax nag nag état bi ñu ngi leen di demandé dañ na wax ne histoire Sénégal ñu tàmbali ko bind coow tàmbali nañ jël loolu lépp teg fale livre yooyu ñu interdit ko ci bun demee ba di ko def ndax bu ñu xoolee ci nekkuk Abdoulaye Wade la tàmbali woon jeexelu ci nekku Macky Sall mu nekk livre bi soog a jeex waaye jàpp naa ne li may demande président Macky Sall livre yooyu ñu annulé ko fas yéene bu ñu ko dee def kër diine yi ñu tànn ay nit yebal leen ci xalifa yi xalifa yooyu tànn ay nit ñu boolee ko ak li ñeneen ñi bind ñu mën koo dajale kenn ku ne bind la ne sa kër ñu dajale ko loolu mooy li ëpp solo loolu la ni ñaan état bi ñu def ko